salaam salaam mën na nekk ak jàmm dong la sama gars yi tey nag ngi ci sud-est du Sénégal ci région boo xamante ne ku ko dégg sa xel dina dem ci Bassari dem ci Bidig yi dem ci Cognac yi dem ci Jalonke yi ak sama mbokku pël yi parce que ñi ngi frontière Guinée ak Mali ñi ngi dëkku Mamba Girassi ak Moustapha Girassi ak Salif Diao ak ku mel ne Amath Dansokho ak yeneen daanaan yu bëri yu def lu rëy Sénégal tey nag ñu ñëw seet si ndaw yi nga xamante ne ñi ngi fii di dóor waar di suqali seen dëkk ay ta welcome welcome mën na nekk la vous l'aurez compris ñi ngi Kédougou Kédougou di tekk ci malenke dëkku góor ñi nekk dëkk boo xamante ne dafa mës nekk région bu ñu ràññee ci am suuf bu naat ak nawet bu riche ku dégg Kédougou sa xel dafay dem ci exploitation wu or cuivre fer phosphate yeneen ressources yu bëri ndax yàlla def na ne lépp luy matériaux bu ñëpp di wër ci àdduna ak pierre précieuse am na fii nii nii ñu nekk ci dëkk bii ñu nekk muy Kédougou waaye ñu fi dëkk ñëpp nag liggéeyuñu ci loolu moo tax tey dañu fi dalal benn jàmbaar bu jógee fii ci Crémédiel mi ngi tudd Thomas Makhasouba samp këru liggéeyam ci li ñuy woowee pisciculture Thomas naka mu yaa ngi cool. sant rek. tey nag dama bëgg ñëw nga jàngal ma métier bi ngeen. ah mais grand métier bi moom dafa laajte temps nag. Ah. dafa laajte temps quoi dafa laajte temps dafa laajte patience. c'est vrai. c'est vrai xam nga affaire wàllu yar jën moom patience la parce que loo gis moom soo amul patience rek doo dem. Mm-hmm. parce que soo gisee tey man maa ngi toog fii Kédougou maa ngi toog jël City. Mhm. di yar jën. Mhm. parce que dama xam ni ëllëg pour mun a servir waa dëkk bi ëllëg pour mun a servir waa societé bi tamit parce que xam nga Kédougou fii nii am nañu société yu minier muy Sabodala la muy Mako mais xam nga ñu bëri dañuy yaakaar ne il faut que si societé pour mun am dara. Ah, loolu laa mos a foog dama foogoon ne fii loolu rek mooy fi am liggéey. non liggéey bari nañu fii grand. boo xam pisciculture bi. ñun avant dañu doon dem si àll bi trente cinq kilomètres quarante kilomètres di dem jàpp foofu ay jën ñëw suñu jàppee jën yi ñëw dañ koy lekk si fan bi nga woon quoi. pêche traditionnelle nga doon def pêche traditionnelle quoi. xam nga comme yor nañu équipe équipe lañu doon deme des fois dañuy fanaan ëllëg bi ñibbisi mais fur et à mesure du temps ñu xool ni lu tax du ma créer benn basin su ma xamee su ma demee si àll bi jàpp jën yi ndaw yi. mooy poisson chat yi ñu yar leen parce que poisson chat moo si gën am doole moo si gën a am poids te carpe carpe mooy yeneen jën yi ñuy wax waas affaire yooyu. bokkul mais man si loolu laa nekk. parce que ñeneen ñi ngi si carpe yi mais man dama choisir ne damay jël poisson chat yi pour yar ko mais xam nga poisson chat yi moom ñoom dañuy gaaw développé. Hmm. ñoom même su bu dee aliment amul mun nga dem jënd euh, euh, cok xam nga si moulin yi. mun nga dem foofu jënd lool nga ñëw jox leen. ñoom amuñu boobu. ah te loolu c'est boobu tamit c'est naturel ñoom mun nañ lekk lool. Hmm. waaw léegi mboq bi suñ ko béyee soo la neexee mbokk bi tamit soko bi mun nga ñëw nga jox leen ko mun nañ lekk amul problème loolu yëpp de des jeux si développement. c'est très important ça parce que dama mës a gis ne yow da ngay bàyyi xel écologie bi da ngay respecter environnement da ngay recycler. Mhm. loolu loolu dafa am importance ci ci sa liggéey. waaw recyclage bi comme noo ko waxee gis nga lu tax mu important parce que xam nga euh, ndox mi duñ ko tuuru. Hmm. parce que ndox mi day njëriñ si yeneen plante yi. d'accord parce que ndox bi jën yi nekk. waaw da nga koy utiliser pour. pour plante yi tamit pour hmm. arroser. kaani bi mun naa arroser batanse bi. Hmm. mun naa arroser sama poivron bi mun naa arroser sama tomate yi parce que si loolu lañ tamit loolu moo tax mun nañuy associer ñaar yi loolu moo tax bassin bi warul sore fu ñu waree defee tamit euh, suñu maraîchage bi. d'accord loolu la. léegi yow ñan ñooy say principaux clients ci activité bi. bon xam nga activité comme que dama ko euh, ça fait deux ans ba trois ans maa ngi si suñu suñu clients yi quartier bi la. d' accord quartier bi. c' est pour la communauté c' pour la communauté xam nga il faut nga commencer d' abord si sa quartier. bien sûr après quartier bi mun nga dem si marché bi après marché bi suñu vision bi mooy société yi parce que société yi tamit tey fu ñuy jëlee jën yi dafa xaw a sori souvent jën yi soit mu jógee bitim réew wala mu jógee Dakar. mais bii nii mun nga ñëw léegi léegi génnee ko génnee ko togg ko day lu ngay gën a sentir si alimentation boobu moo gën buy jën buy jógee congelé pendant des des mois. donc loolu moo tax lii yëpp moo nekk suñu ambition bugg a développer suñu dëkk si wàllu pisciculture. parce que léegi ñu bëri comprendre nañu lu tax war nañu yëngu si pisciculture parce que gis nañ njëriñ bi gis nañ lu ñuy lekk dafa sel te wér-gu-yaram bi tamit. da lay gën a yokk. Hmm. loolu la. su amee ko xam ne dafa bëgg ñëw euh, dugg ci pisciculture lan nga xalaat ne la war a jàng ban xam-xam la ci war a am balaa muy lancé wu ci business bi. waa xam nga ku bëgg a dugg si pisciculture bi il faut que mu dem jege ku gën a am expérience xam nga expérience dafa baax si liggéey parce que soo amul expérience da ngay jël sa xaalis nga financé ko finalement perte lay doon si yow donc loolu dafa am njëriñ. parce que soo buggee dugg si dara laajteel ñu am expérience ku la jiitu si liggéey moo la gën a am expérience. xam nga avant am na yeneen formation yi foog nga jógee fii dem ba Dakar ba Thiès léegi loolu yëpp dafa jeex parce que formation yooyu léegi am na fii. léegi daal defee ko fii mën na def ko fii mën na nekk fii nii. jeex na <laughs> jaajëf merci ah. bëgg naa am am mais dafa bëgg naa tekki mais soxlawul teg di loo teg di loo bëgguma coow coow coow bëgguma coow taluma kaw no no taluma taluma kaw bëgguma yaay booy jooy jooy bëgguma baay booy son baay booy son wërsëg teew ma coob sama wàll alal bu leew xel bu dal yeew matin song sama biis faj sama xiif def sama max bala sàkku ndimbal coono du reer kon du tàmm lu yomb yoon bi dafa sori du ma tàyyi di run run tànnu ma ak ni ci yoonu jublan damay def sama max bala sàkku ndimbal coono du reer kon du ma tàmm lu yomb yoon bi dafa sori du ma tàyyi di run tànnu ma ak ni ci yoonu jublan I'm ready, ready. wut xam-xam dafa war ndaw bu nekk képp ku nekk région de Kédougou te bëgg tàggatu am na formation yoo mun def te du lu dikkee dara mbaamu mu dikkee la lu néew mën ngeen tàggatu ci mécanique générale coiffure gestion d'exploitation agricole informatique maintenance mine ak yeneen yu bëri yoo xam ne soo leen demee ci suñu page Instagram wala Facebook di ngeen fa am information yi ngeen ciy soxla yépp mën nañ ne secteurs yi gën a dox ci wàllu liggéey ñooy bâtiment et travaux publics foresterie énergie renouvelable industries et mines tourisme te lim bi yamul fii am na yeneen secteurs yu bëri yoo leen mën a gëstu soo leen demee pôle emploi pôle emploi au Kédougou mi ngi nekk hôtel de ville de Kédougou pôle emploi au Salémata mi ngi nekk ci préfecture u Salémata pôle emploi au Saraya tamit mi ngi nekk ci préfecture u Saraya salaam back people ba léegi yéen a ngi ci seen podcast mën na nekk fii ci Kédougou la terre des hommes mais li ma ci jaaxal mooy xam naa ne adduna bi Afrique bi Sénégal ak kéedugu bii ñu nekk bu doon góor yi kese la ah dina am lu dox waaye dina am loo xamante tamit du dox ndaxte jigéen ñi kenn mënul def te doo ci boole dafa am ay jigéen yoo xamante ne nii ay Amazone lañ ay jigéen yu mën góor ma jàkkaarloo kenn ci ñoom ku tudd Abi Sy Abi na nga def. asalaamaaleykum Elzo nuyu naa la maa ngi si jàmm alhamdulilah. yaa ngi cool. maa sant yàlla bu wér alhamdulilah. ABC championne du réseau de champions pour réussir au Sénégal félicitations. merci beaucoup. Abi dama bëggoon nga wax ñu naka nga def ba nekk euh, championne réseau bi fii Kédougou. alors loolu dama ciy sawar tontu Elzo man maa ngi tudd ABC j'ai 24 ans. bi may euh, dugg euh, ci réseau de champions bi daanaka maa ngi am ay 19 ans. bi ma ciy dugg nekkoon jeune boo xamante ne j'étais la vice-présidente du conseil départemental de la jeunesse de Kédougou nekkoon ci loo xamante ne tamit euh, lépp luy jeune daal lépp loo xamante ne ci jeunesse lay yëngu ma nekkoon ku sawar depuis toute petite temps avant l'âge de 19 ans sax ma nekkoon yàgg sob yàgg sob dugg ci affaire yi voilà et puis je le faisais ci manière bu naturelle parce que dafa di loo xamante ne dama ko yàgg def ko fait en tant que euh, vice jeune vice-présidente du conseil départemental de la jeunesse de c'est super et c'est ça qui j'ai envie de dire c'est ça qui paye parce que nit booy def dara te xaaroo ci dara en retour yow da nga bëgg sa gox bëgg sa localité yaa ngi xool noo ko mën a jéem a dundalee pour man boo nekkee jeune boo gëmee li nga xam ne boo toppee li nga xam ne mooy sa passion rek tôt ou tard dina dina fay te yow tu en es la preuve euh, tey jii nii lan mooy sa lan mooy sa activité professionnelle. alors maa ngi liggéey Sénégal Service. mooy l' administration de proximité je vois que loolu ñu instant bi ñëpp ko xam parce que mu ngi ci maa ngi foofu comme chargé de que je me suis professionnalisée ci journalisme et ah, kon li ñu nekk di def nii sa domaine la yow laa waroon bàyyi bi. xam naa ni yaa ma gën a ay. <laughs> ku bëggoon euh, jël contact ak bi ku benn projet dans l' bëgg nga accompagner ko ñuy saluer waale suñu frère euh, Ousseynou Gueye mi nga xamante ne jël naa ko ci émission télé bi nan lay mën def pour jël contact ak yéen ngeen jàppale ko won ko nan lay structuré woo nan la mën a développer projet am. sama numéro c'est le 78 169 85 06 ma bamtuwaat ko le 78 169 85 06. sama adresse mail di abc avec h 550 arroba gmail point com ma répète waat abc 550 arroba gmail point com. leer na nañ. kon nag gars yi ñoo ko déggandoo ku fi am projet ku fi am dara nga da bëgg structuré wu da nga bëgg sa job jëm kanam wala book da nga soxla sax orientation bul hésiter champion yaa ngi fii ils sont là pour ça ngeen contacter leen ñu teg leen ci raay abi maa ngi lay nuyu di la remercier waat ci dalal bi ngeen ñu dalal. di la jox rendez-vous dox daje ci fan yii di ñëw incha allah. incha allah ñu ngi lay jaajëfal aussi seen liggéey rafet na macha allah.